ceroo ko laa ko mujj jot téléphone yaakaar naa benn bis la ci teg wéer digg dal ko la ma mujj wax mooy sëriñ bi de mbirum dialogue bi ki jiite réew mi def woote di président Macky Sall ñu ngi bëgg ngeen jàpp ci ci seen taxawaay ak seen xalaat rawatina nag yow séntu nañ ci sa yaakaar bu baax ngir njëriñu Sénégal baat boobu mu mujj wax ci àdduna kon nag man mën naa koo seere kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm soxna Aminata Mbengue mi nga xam ne.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 ku am fulla ci li muy def ku dëggu ku am yitte te am pastef loolu tax mu agsi fii te nangoo liggéey yaakaar naa ñim liggéeyandool ci gouvernement ñu di kilifaam seeral nañ ko ko ci kanamu ñi ñi liggéeyan ba àgg ci di wax ne ñam nekkal moo leen ci gëral kon loolu doon na sekk seere mooy loo xam ne ñun tam loolu rek lañ xam ci moom ndax ginnaaw Abdou gis ngeen ni mu àndee ngorum